away from shame with her head held high, but with a broken soul. She will strike out first to avoid being hurt again. But there's one who will not stand for it. Woman of Steel. The drama that marked the history of the telenovela and traversed the world to more than 66 countries. The story that reunites two international stars, Lucero and Fernando Colunga. A Woman of Steel. For details, contact GRTS Marketing. waaw waaw asalaamaaleykum suñ mbokk yi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan fii ci Gambia radio and television services gannaaw ba ñu sante yàlla di julli ci sang-sangay di Seydina Mohamed salallahu alayhi wa sallam saa su nekk ñaari waajur waaye dañoo sant suñ wasila di Seydi Ababacar Si yanoy yàlla taas ci barkeem yokka leeram saa su nekk suñ fa jógee dinañ ki nga xam ne moom njabootam ak képp xam ne yaa topp ci gannaawam a yóbbore lopitaan bi yàlla may leen wér bañ delluwaat seen njaboot waaye ñi nga xam ne ñoo ñu foofu ca bar sax ñu ñaan ki nga xam ne mooy buur bi yàlla mu wàccee li nga xam ne mooy xoli yërmande seen kaw suuf suñ fi toogee dinañ bëggee képp koo xam ne yaa seetaan Gambia radio and television services réewi Gambia dama naan képp koo xam ne jamono ji yaa seetaan ñi nga xam ne dañoo topp programme ba ku maa leen di wis ñoom ñëpp happy new di leen ñaanal si at episode bi dal di gis suma makeup bi ngeen xam ne waa Sambeen coiffure ñoo jaar ko nga xam ne mooy sa Jawara Samba ak xaleem yëpp nekk foofu noonu ca Atlantéro tey na dafa dal di def rek mu ne nañ ko def rek mu rek bayende ko bi mooy 2013 bi waaye buñ fa jógee na ni ñoo def rek mooy dañoo dal di dag jublu na ci ki nga xam ne tey mooma ko nga xam ne suma ñëw ko ci coloré la nga xam ne moo nekk Assane nekk foofu noonu am ca kuna asan su nekkee yaa ngi seetaan kontaan naa lool si ñëw bi di la ñaanal fàttewuma si nag mère xuma moom itamit di jëkk jabari paaxuma ma di wax ne saa su nekk rek dégg naa seen yóbbante si asan ba tax na na ni ñoo defee wax naa leen si jamono sedda lañ nekka te sedda na buñ ci duggee naka lañ def faral di def léegi léegi ñu togg ñam yoo xam ne ñam yu saf laa nekk ci biir gémmiñ moo tax ne dama leen a indilaan li nga xam ne mooy ngurbaan ndax xam naa ne yéen xale yi xamul leen lan ay ngurbaan suñ fi deltee rek ñu ubbi ubbi line ñu dal di def ba ne nañ def loolu asalaamaaleykum suñu mbokk yi nga xam ne yéen a ñoo seetaan fii ci Gambia radio and television services saa su nekk ni ma ko dee faral di waxee tey tamit ma ñëwaat fii Mamou Ndaw Cissé tey tamit ñu pare waat a indiwaat beneen façon ñu boo xam ne ñun ñëpp dinañ ci jàngee lu bari mun ndaw ñu di la nuyu te di la wax ne nag naka nga ñu tey moom lan nga ñu paree toogal. ah alhamdulilah maam Ndiang salaamaaleykum mbokki réew mi waaj yaatu yees ñëpp. ah maa ngi mhm. leen di nuyu seen tur ne tey itam ñëw na ak beneen toogi cosaan mhm. bu ñu ooyee ngurbaan si olof mhm. so see di ko ooyee daabiro waaw moom laay togg Sénégal nag di ko wax laaxi caaxaan laaxi caaxaan moom la naan ci dee ah moom first of all eh, di nga gis bi sanxal si la waaw dugub bi la bii nii keccax gi la bii tàmbajang bi la waaw bii netetu bi la waaw bii kaani bi limon bi mi dafa war a spice tuuti forox bi jaxatu bi la kanja ak tamaate doom ak kubu waaw kubu la ka bi ak wonjo bi pour mu xaw koo may foroxa daal gerte gi tam am na soo trop because mooy waral mu am ay affaire am na ndawal tam muy yàpp waaw bu la neexee nga def ko bu la neexee nga def kubu la ka bi kese waaw non bu ndawal bi laay def waaw bu ndawal bi laay waaw ko jaxase mu nekk lu am solo de ngeen tey li mu ndaw wax mu ne tey ne dafa delluwaat ci jamono maam yi tey mu indi ñu li nga xam ne ni mooy ngurbaan tey mu nekka tooga boo xam ne ni ma leen ko waxee rek ku ko lekk wérgu yaram rek nga am waaye dañoo bàyyi mu ndaw ci biir waañ bi suñ fi dellusee rek ni ma leen ko waxee rek ñu jàkkaarloo moom dal di laax rek dal di teg. baby